waaw festival bi boo gisee ñu def ko ak caravane bi Mbàkke fii ci Mbàkke Bawol dañu def benn rassemblement des artistes Bawol maanaam fecckat bi woykat yi taasukat yi ndax dañu dem ba découvrir que ni aar dafa dee fii ci Bawol ah, rawat na lu jëm ci wàllum fecc yi wàllum taasu wala wàllum musique moo tax tey ñu rassemblé woon suñu xarit yëpp ñi nga xam ne ay woykat lañ di dund ci loolu pour bëgg a def benn festival 112 heures après la fête de la Tabaski tey moo ñu def caravane bii nii ci nit ñi wane leen ne Mbacke am na ay talent am na ay tëggkat am na ay fecckat ba lépp lu war a jigaani feneen am na fii ci Mbacke Bawol loolu moo waral caravane bi tey jii ne rassemblement des artistes di département maanaam am na ñu dëkk ba Touba bokk ci ndax Touba ak Mbacke benn lañu am nañu dëkk ba Kayel am nañu dëkk ba Sadio kon daal dañ ne département bi yëpp la nekkul Mbacke kese tey ubbil leen ñëpp suñu ay bunt képp koo xam département bi nga bokk nekk artiste ci maanaam foo koy yëngoo te nekk département bi ñu la jiwoo li ñu tey jii ba tax ñu def caravane bi 72 heures la ñu waxoon prévoir woon nañu def set setal pour dem op set setal dëkk bi mais tel n'est pas le ndax dañu am défaut de moyen léegi ñi ngi doon def suba don de lépp ñi ngi ci programme ginnaaw suba incha allah dañu bëgg a def benn concert bu mag fële ci boulevard Gawane bu ko defee doomu Mbàkke yëpp génn artistes yi leen seen ay talent ndax doon nañu def liggéey bi am solo danoon def ay répétition yu baax mais nag répétition yi métti woon na ndaxte amuñu woon fu ñu defee répétition yi si école lañ doon nekk verdure bi pour ñu jot si problème la woon amuñu woon ay moyens kenn daal soutenir ñu suñu ay propre moyens lañ demee mais comme su aar la te waa dëkk bi leen def na ci luñ man ba jiim ko taxawal. waa Sidi man dama nekk artiste nekk Mbacke nekk fekk samay rakk ak samay xarit ak samay mag ma xam ni kat Mbàkke ku ne xam ne ni culture bi sooxe na fi art bi sooxe na fi ñu am initiative fu créer benn rassemblement rassemblement artiste départemental de Mbàkke léegi ni ñu doon def benn 72 heures démb lañ commencé woon tey jii ñu ni day def caravane suba incha allah la ñuy def concert bu mag ca boulevard Gaawaan ba di ci woo di ci woo Sénégal gépp di ci woo Mbàkke gépp artistes yëpp ñoo ànd tëggkat woykat fecckat taasukat ba ci ñi nga xamante ni ay tëg tëgër lañ ñoo ngi leen ciy woo pour ñu renouveler suñu aar dekkalaat suñu culture te xam ni Mbàkke kat dëkku culture Mbàkke dëkku aar la war nañu maa ànd bokk ndey ak baay téye suñu aar bi suqali suñu aar mu jëm ca kanam suba nag incha allah ñi ngi waa waajal concert bu mag bi ñu ngi woo ñëpp di di di di appel autorité yi na ñëpp ñëw jàpp ci te xam ne bis bi seen bis la seeni doom ñooy def doomi dëkk bi ñoom ñooy def te it nag soxla nañ ay appui soxla nañ ku ñu ci jàppale. def nañ ay répétition yu mucc ayib. Eh, teg nañ ay thème ci wàllum way ci wàllum fecc parce que tëgg tëgg sax galan bi sax dafa am message muy joxe eh, ñu bëgg a eh, maanaam xam le ni aar kat dama ko jëlee mais culture waxuma la dëkk mais day suqali réew day suqali réew ñu bëggoon suñu rakk yi ñu teg leen ci code suñu doom yi ñu teg leen ci code ñu mën a xam fi ñuy jaar ci aar bi ndax aar méccam noobul la waaye nag li ma li ma wax sànq rek moo ci nekk peccum liir bu neexee nday jaatee ci wagg kon bu buñ sañoon waa Mbacke génn suba incha allah à partir de 22h ca boulevard Gawane ba jàppale seen seeni doom seeni i jarbaat seen rek seeni i xarit te xam ne kuy wàlli yaani sa kër moo tëggul te waa Mbacke Bawol ñoo tëgg tey ñëpp nag lañ ci woo bàyyiwul kenn ñëpp képp kuy def aar ci Mbacke rek incha allah woo nañ la pour nga ñëw wane sa aar. waaw non affaire bi fini affaire bi fini doonatul bongo doonatul musique doonatul leneen. tradi moderne lañ boole fi mu toll parce que boo xoolee bongo maan yaa ngi ci sa kër sabar yaa ngi ci musicien yaa ngi fi xam nga yaa ngi fi claviste yaa ngi fi ñëpp a ngi ci biir c'était l'art quoi kon affaire bi kon mën na ni léegi tradi moderne lañ woote ñëpp ci biir quoi bàyyiwul kenn waaw ñu ngi ñu ngi gërëm nag euh, waa 28 pro vraiment boobaak léegi ñu ngi ànd ak ñun ci événement bi di ñu jàppale di ñu pousse ndax 28 pro ku ne xam na ni moom euh, askan wi ñoo ko moo ko ñor boobaak léegi fu fu fu teg suñu tànk rek teg nañ teg nañ fa seen tànk pour di ñu jàppale ñu leen remercier encore une